wa rahmatullahi taala wa barakaatu bu ngeen gisaa jisaay bi ngeen xam ni lu rëy xew na loolu moo lan mooy bés bi nga xamante ni mooy journée culturelle bi nga xamante ni dañ koy amalal maam Cheikh Issa Diène euh, fii ci Ndakaaru mu war a am nag dimanche euh, le 28 euh, janvier ta ñu amal ko nag ci ndigalal la Serigne Mountakhal Bassir waaye tamit ci kilifteefu Serigne Abdou Latif janna xalifa maam Cheikh Issa Diène ak mboolem ay rakam waaye tamit ay doomam ak diine waaye taalibe yi ak seexi maam Cheikh Issa Dienne eh, thème bi di jàmm bis bi daal eh, góor jigéen mag ndaw ñi ngi ci woo ñëpp na bi mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuho nee na yéen bokki julit yi fi teew yëpp di bokki murit di bokki taalibe di bokki jege ñaale ne moo xam kat ci ndoomi soxna la wala wetu njaagu rëy la sëriñ bi nee mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp tey siyaaranteeg yéen ci bis bu màgg bii Cheikh Mamadou Mountakha mu ni mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci bis bu màgg bii ne di leen xamal ni ne bis bi day ne taxawu ngeen ko lool ba yegg ci lool ne yéen taaliba yi ngeen xani bokki murit yi yéen jiitu kat laxasaayu mbooloo mi topp ci seen gannaaw ba bis bi yegsi fii nee mi ngi leen di sant te di leen ñaanal bu baax a baax tey doolee ñaaxaate rekk nag li nga xam ne moo nu amal njariñ tey ak ëllëg muy sunu lislaam ak sunu taalibe loolee sëriñ bi nee nañ ci góorgóorluwaat bu baax faxasaat xol yi fas yéene gën a nekki murit gën a nekki taalibe ne taalibe kat mënoo si ko nekk ci wàllu sëriñ bi nekk murit te nekkoo murit nee murit gi nag mooy jébbalu nu xam loolu kon nee Cheikh Amadou Mountakha nee na mu ngi leen di sant bu baax a baax ndax mbooloo mi tund wu ne waaye bàyyi koo na fa ànd ak seenu ñaq ak seen alal ak seeni coono ak seen wéradéeg lépp ngir yàlla ak yonent bi ak Bamba ak soxna si tëdd fii ne loolu gis na ko bu baax mi ngi leen ci ñaanal bu baax a baax xaasatan nag li nga xam ne mooy dëkku Poroxaan bi nii ko sëñ Basiiru ndax ba fi sëriñ bi duggee ba léegi na nga boole seen lépp seeni xol ak seen bëgg-bëgg ak seen pasteef ak seen alal jëme si ko ci sëriñ bi ngir yàlla rek ak jëmmi sëriñ Touba nee na ñu dool sëñ Muntaxa mu ni ñu dollee góorgóorlu rek nee ñu yeesalaat xol yi feddli ko waat jom feddli ko waat pasteef jëfee feddale ko ci sëriñ bi jëmee ko ci sëriñ bi ndax kat nun lu nu am yàlla sëriñ Touba ne kon nan loolu yi nu am nan ko xam ne lañuy ñuy mën a delloo sëriñ Touba njukkal dañ koy tudd sax waaye moom mëneesu ko nekk ci ndigalam rek nag muy tëbuy dëgg ci nun ne loolu daal mooy wàllu taalibe nee na mu del si sunu bokki gan ñi nga xam ni ñooy waa guur ne ministre Sidiki Kaba mii leen jiite te bàyyi ci te bàyyikoo ci seen kilifa sëñ bi mu ngi leen di dalal bu baax te di leen yaatal bu baax te di leen jàmmante yéen bu baax a baax te nag ak cantam mu tàmbalee ci yéen jëm ci ka leen yónni nee seenu taxawaay ci dëkk bi rafet na lool yéen it këm seen kàttan nee kon lool ñu yëm koo yokk la nga xam ne moo ci manqué lépp ak na ngeen ko war a doxalee lépp loolu moom ci loxol sëñ Bachirou doomam ji lañ ko bàyyi nee dana ko waxtaane yéen mbir mi nga xam ne moom lañu jublu nee yàlla nañ ci sëriñ Tuubaa wallu te xettali ci te dimbali nu ci ci kàttanu yàlla sunu borom ak darajee rasulillahi ñu def ko ci jàmm yëlëb xol yi ba mu set wicc te ci ci bañante boddante fas yéene ànd liggéey réew mi ginnaaw moom noo bokk lu nu bëgg bokk fu koy bëggee bu nu juuyaloo ne leneen a nga ca kon nag nan doolee góorgóorlu bu baax raxas xol yi bu baax boole xol bu baax nu dugg ceeg jàmm génn ceeg jàmm ndax nguur ci loxo sunu borom la ne yàlla mooy fal ku ko neex mooy néggandikul ku ko neex kon nag ki falu nay geesu bu baax ñi ca ginnaawam te xam la tax ñu fal ko mu nekk ci kem kàttanam ña ca jéem a góorgóorlu nangoo liggéey te bañ a yàkkamti jërë ngeen jëf na ñëpp tàllal laa ilaaha illallaah Fadal yàlla na fi yàgg ak Cheikh Ahmadul Muntaxa muy